waa asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ma nuyuwaat leen seen xarit la Gaye Njoro ñambeeg maam xaasima ak seeni bu doomi ndeyam ak baayam siti maamam tey nag ma ñëwaat leen fii si bésu indi leen fi seen Tamba Mbaalu Show wax naa leen ne Tamba Mbaalu Show fu nekk la ñuy dem ku nekk la ñuy seet dinañ seeti ku nekka tey nag seen Tamba Mbaalu Show ku ma leen indil mooy Jali Dembo Jobaate Jali Dembo Jobaate nag. kenn du ko présenté si musique yi Gambia bi Jali Dembo Jabaate nekk Jali bu mag mu ne woy lool baatam bi neex Jali nag tey moom lañ seet si ma bàyyi leen rek nag mu nuyuwanteeg yéen Jali nuyu nañ la. Ah. म्हणणार आहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वालेकुम सलाम कोणत्यानालो सदेव Ulunala santanala ramatullahi kubarika baraka Ay panile mani Songkomani bangkumani bante horaya tiyala Ah, ah, dunia Saratika monimo bade saratika na fika natoka wolatia waaw Jali Jali woy bi neex na Jali ni nga nuyoo yooyu neex na ma Jali sa woy neex na Jali baat bi neex na trop mbokk yi comme xani bi nga faale ñaameng dorong bi mbaale busub mbaala jang naata Jali dembo joɓatele ya pour naye kaca juma leng jali dembo joɓate ndi comme nga faale ñamin dorog yalon tala manni koko ko nan ka jahasele aman saniya bari mba bele jahas bahas le mbe manni ka ko ngo fala mbe sorwa ko ngo fala kaatu mbemu kilinniti Gambia amul si façon fanto ñun ñëpp benn lañ comme ni ma leen ko waxee rek fu nekk rek suñ fa mu wut sax di leen jéem rek jéem rek pour bégal leen comme que yéen ay suñ fans yéen a ñuy déglu te li ñuy def neex na leen saf na leen kon noo leen ko buggee rek foofu la ñuy dem Jali gannaaw buñ nuyu wanteeg yow ba pare rek Jali mën nga ñoo wax kanaay Jali démboo Jobaate. dégg la Ramatulaay. Mm-hmm. man maay Dembo Jobaate. Mm-hmm. dëkk fii ci Busumbala. Mm-hmm. ah mun naa wax ne man yoon artiste laa. waaye gor gor lu rek. Mm-hmm. maa ngi ganaw gannaaw. Mm-hmm. foog naa naal seen ñaan bi. ak mm-hmm. sen support bi moo mun a moo ma mun si kanam. kon si kaw loolu. kontaan na lool torop si lolu yow sa ni nga ñëwee fii. pour gis ma. ñu xamanté at least tamit ngam na ma won si nit ñi. kon lolu mom lu reey la si man -hmm. kontaan naa ci torop rahmatullahi maala gi rek kontaan Jali comme ni ma la ko waxee woon rek xam nga ñun Gambian talent fépp fu nit di nekk fépp fu Gambian nekk di def lu nice am talent dañ la fa bugg fekk wane sa talent wane la laak askan bi ñu xam foo mu ne xam nooy def moo tax nag ñun fu nekk la ñuy def dem bàyyiwuñ fen fépp fu nit muntu nek so nekkee ba passé sax dinañ la fa fekk wane yu bax yi ngay def ñu xamné ne Gambia bi amnañ nañ talent everyday dama ko wax Gambia bi am ñu mëna wëy amnañ ñu am talent waye nak comme nuñ ko waxé ndimbal bi mo amul jali comme nu doon waxé rek si bu ñaka bi ma laaj la kanaay jali jali kan moy jali jali fan la doré kan moy jali dal nga wax ñu sa boppam waaw eh dula li nga wax ni eh, Teka lang. Mm-hmm. Ah, man. Man, bembo jabari la tula. Mm-hmm. Te eh, man jebel la. Mm-hmm. Suma uh, eh, wajuri ya jebel la. Mm-hmm. Nim jabate si wia giriot. Mm-hmm. Ibe manding. Mun na wax ne daal si wàllu jebel yi Mm -hmm. ah jabaate tamit def nañ lu bari. kon yow lii da nga ko doona waaw man dama ko doona da nga ko doona si waaw suma maam yi ñëw suma yaay suma papa yi mm-hmm. so dama ko inherit so mm-hmm. man tamit bi may grow up mm-hmm. ma gis ne daal lii is my everything is my diamond lii laa mën a tiitaroo so man daal man xaaral ma téye suma cosaan bi daal li ma fekk suma maam yi di man tamit yoon boobu laa nekk <laughs> waaw ba suma tolo ni tay ji jali mën nga ñoo wax ne jali fan la dooree jali fan la commencé musique waaw man man jali mom 1988 la start music hmm bima jéxalé suma schooling bi foo démé school maa ngi défon suma school bi ko secondary school mhm. ok bi ma jógee foofu ma ñëw si suma sista Bundung mhm. I was in Bundung So for Flanika must start to have the inspiration of music. Mm-hmm. And then they must start to make a toy guitar. Mm-hmm. So must try make bobu be ma jehal must def boom si waaye mm-hmm. da nga gis ne is not a ready made one doo ko mën a cuun ak yooyu noonu mm-hmm. bi ma sona naa ci sax waaye bi ma ko jeexalee ba pare rek dafa mel ni nit moo wax in mind yow mm-hmm. léegi balaa ngaa toppa lii li nga xam is not the right one -hmm. why mm-hmm. not try to follow a right one? Mm -hmm. So that was in 88. Muy ban bananeka right one bi. Wow, bo moy the real guitar. Mm -hmm. So after mané wow legi aran ma try ma ut guitar. Mm Only one is a toy one made by myself. Okay. So mané li, let me try to follow the right one so that I can achieve what I want. Mm-hmm. So I start to look for guitar in town by then. Mhm. benn suma xarit moo amoon jitaa dama dee dem si moom ma aba jitaan bi mhm. di ñëw you know try time boobu xaw ma dara si musique mhm. so ma nekk noonu yenn saa yi nga xam ne am nañ little expérience suñ ma fekkee ak jitaa bi sax suñ jële jitaa bi si dañ ma dee wax waaye this is not tune yow jitaa is not tune time boobu di woo tune sax xaw ma ko so loolu daf ma dee jaaxle nag waaye suñ demee man kay maay kirin karam foofu so noonu laa nekk may manage may manage ba ma dem Sénégambia mm-hmm. time boobu entertainment manager si dama dee dem si ñooñu ma arrange foofu yi si tubaab yi mm-hmm. so ma nekk foofu you benn bés ma wàcca ma ñibbi si kër ga ma fekka suma jarbaat mu ne ma am na ku la laaj fii mm-hmm. ma ne ko man ma ne mu ne ma waaw so ma laaj ko kan la si suma friends ma foog sisma si suma xarit yi la ki ma describe mune ne ma no du koku so ma jaaxle dal mané ki dal man xaw ma mune ma way mu la soxla de mune dina ñëwaat so ma ngi taxaw akari ma gis ñu sentu ko mu because moko ko moo ko gis ci distance mune ma ha ni jaay ki ma la wax mu di ñëw koku moy kan moy Ahmad mhm. mom tamit sol sol sol jala okay sol so because koko by then daf ma dee gis ak guitare yi may dem up and down in Bundu so moom sax dafa foog ne am a real guitarist dama doon mhm. xam nga so bi mhm. mhm. yi daal dañu bëgg a form dance band who am any musician in town boobu ban year la woon that was in 1988 ok waaw so si 88 boobu kooku ñëw after mu ne ma jobaatee mana ha man mun winta am nan waaye mun munuma mako understand mu ne ma anyway dañ ma yónnee si yow ma ne ko ha mu mana ma ko ñan la ñoo la ma anyway soldaar yi mu dañ la soxla on Wednesday si camp latest eleven o'clock somma hawa jahli si lool mu ne problem so mu ne ma problem just xam nga dama la agita. Mhm. so gars buka form a mhm. so dee man dama leen wax ne dama la area mhm. so this why ñu ne nga so wednesday boobu ma try time boobu suma benn nijaay moo am box guitar time boobu aw ma guitar xamaguloo guitar time so ma dem Abakoku kooku time bi that Wednesday ma dem si camp bi mhm. time boobu late Balde captain Balde Moussa moo nekkoon si baan bi mhm. so by then the present band mhm. ma si office am mu ne ma dama bëgg a at least nga ñamal ma tuuti so li tuuti ndaw bi li ma mënul si jitaa bi man tey ma try di play loolu ma boole ko woy mu ne ma no you are good Mm-hmm. yow kay moom nañ fexe ñu jox la mu ne ma anyway by now at this time Ndaw Njaay dafa travel Biden moo nekkoon ami commandant mu ne ma Ndaw dafa travel waaye su ñëwee rek incha allah dinañ la kool nga ñëw xam nga mm-hmm. Ndaw ñëwee ñu kool ma waat ma dem guy in organize you know it was a amplifier and my guitar you know so Ndaw was sitting in front Mhm. ma expliqué di wooy ndaw ah, leen ko so that's how I boobu nekk 1988 si nga commencé real music dugga ci yow bi nga duggee ci ami bi nga commencé comme ni nga ko waxee rek da nga amee woon ca guitare bu nga xamante ne yaa ko defaral sa bopp aar yow kon aar dafa nekk li nga xamante ne da nga ko yaagaa bugga danga ko doon na ba pare nga newaan mu bugga ko so after bi nga duggee ci ami band bi 1988 si nga duggee ci ami band bi time boobu nekk xam naa ne time boobu xale laa parce que man sax at boobu laa juddu musique nekkoon li nga xamante ne comme lu jafé la instrument ni amuñ fi nit yi amuñ fi wa yow wit all that rek yaa ngi am xob bi ne foo nga dem rek fo nga dem rek so nga nekka ci ñaata at nga am ci ami ban bi yaa ci ba légui voilà waaw fu nekk ni right now dama retire mhm. last January mhm. way force ah, small force dugo, moy 1988 time jawara dama saf 6 years mm -hmm. after 6 years boobu ma buy. Mhm. okay, kon yang di depuis time jawara waaw depuis time ami ban wow, si mm -hmm. so bi ma six years ma jeexal boobu kon war nga am khalis ah. <laughs> anyway anyway, <laughs> <laughs> so 95 tata mm-hmm. di ni also mun soxla ma so ma start di job ak tata from 95 ba 2005 so 2005 waaw loolu dinaa si ñëw mm-hmm. su suñ gestu bu gàrt sax xam naa ne yéeg naa ne yaa ngi woon ci taata dinding bi nga nekkee ci taata dinding mm-hmm. yow lan nga doon def si taata yow lan nga danga ko doon piléyal wala guitare wala danga ko doon aw wala loo fa doon def ci taata ma nekkoon si dama doon pilé guitare Mhm. Mhm. ok léegi gis nañ ne nekkatoo si taata la ma waral nga génn si taata parce que dégg naa ci waxi nit yi waxuma ko de gars yi ci biti ñoo ko wax ñu ne yow da nga joteeg taata mhm. loolu tax nga génn fa yow comme que tey ñu ngi jàkkaarloo yow olof njaay mu ne tungu ne du teew ñuy nataalu yaa ngi nii <laughs> tey comme que leeral lañ bugga ñuy waxtaan ak yow nga bugga ñu la wax ñu lan a dox sa digganteeg taata dinding ñu nga wax ñu lan la daal. waaw anyway taata mun naa wax taata suma mboko la. Mhm. te suma broda la tamit. Mhm. ok te yàlla moo ma boole ak moom ñu jóg te suñ taan yi ñu doon jóg. Mhm. daf ma bugg a lool. man tamit naa ko. ok dafa mel ni rek ah, lu nekk time estimate la rek. yàlla lu mu dogal rek foog mu am. yàlla ni ma. fogeɗa yo Allah dafa estimate ne dañoo job up to a period of uh, 10 years nga foofu la so xam nga rek yàlla ñëw toon suma log again back to the army okay. waaw ma dem to the army waaye awma ak moom problème ah so amu problème problème ok mbokk yi kon nag affaire bi leer na amut ak taata benn problème ba tey rek jali démboo bugg naa comme ka géwél nga te géwél leen toogal te affaire yi géwél man bugguma lu soof dama bugg rek yee julu kilin ke yee ah, la fansool xam nga rek <laughs> yaalom <laughs> yee julu kilin ke le, niñale, niñale, nana niñale, le, nana niña tuluna, niñale, nana niña tuluna. Okay. Maninya ku, maninya jatilila, na wona, nana niña tuluna bigundi ne bila nyinyaye ki waifa bara ki fa nyinika ne maye ne mi minyaye aini Ramatulai Ramatulai kobarika hmm. Neye kanun telu fola Neye kanun telu welela Kanun telu jalitikini yalintante kelen ye baba jalite mɔgɔ min fɛ saramaya jalite mɔgɔ min fɛ tɛ Fan fansolu ne fansili wilila fansilule ne fan silu wilila kumba sopulo jeri penda sopulo jeri jene ba sopulo jeri Nyima budesa nyansila Bibi Fatima ta kuyate wulila Segeni mbabi kuyate Kukubani mbantamba nyani nani ne kama sega Omuntu wala musole bi Wallahi nonna de Wallahi Obesalwa supullo jeri kilila Fula turuni mbukugende jallo ni jagite sidiɓe ganani sankare bari ko barika ko barika jali soborela waaw waaw waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek yéen ak seen Tambambalu Show Gambian Talent Promotion rek ngeen koy amee seen xarit Gaye Njoro di leen ko indil nag di leen indil yu baax yi di leen indil musicien yi nga xamante ne dañ am talent ñi nga xamante ne dañ ñu ci dëkk bi def lu si dëkk bi ñu nit pour wane leen ñu nit pour génnee leen comme ni ma leen ko waxee rek tey nag géwél leen seet te suñ seet see géwél lool du yomba foog ñu def jikko géwél rek hani bii dorong mbe busu mbaala le comme nga faale ñaameng al ning ramatulaay dorong kata gambian talent promotion wala be nyinnatela nga fayal woda. be da ñin gambia e ka nay singo ke mbetara la jele ñi ya ini e fansol nga bege sa fansi dal xam nga jali kom rek ñu ñëwaat rek ma ñëwaat si yow jali xam nga man waxna la man gey njooro man dama bari ambiance xam nga man dama bari ku bari ambiance xam nga ñu aduna am solo xam nga non la fi yàllay bal xam nga loolu la yalla dogal may def tambambali show bi nak gars di la ci beggé sa fan sang la beggé nak ñu bare la sétan right now ni ñu ngi appreciate li nga def ni right now ni ñu bare ngee binda di wax ne li nga def neex eh xam nga Gambie am na talent comme numa len ko dee waxé rek jali ba tay rek ñu delluwaat yaa ngi émone ñëwoon nga nékkon nga ci tata dinding jogé si am nga sitata tata dinding 10 years oh, gannaaw bi nga amé ci tata dinding 10 years nga ci tata delu wat ci ami ban bi jali nga ñëwaat ci ami ban bi di fa pilé di fa def lu nice jali ami ban bi lan nga jàngee si ali bala maa ñëw si ami ban bi sax yow lan nga jàngee si tata dinding bi nga xamante ne tata dinding nekk musicien bu mag tata dinding nekk ku lu moo def ku ñëpp worldwide xam nga yow lan nga jàngee si tata ak lan la tata def si yow well tata well suñ time li nga wax dëgg la neexoon na mm-hmm. te amoon nañ bayra bayra together. Mm-hmm. wow. Joe ko from 1995. Eh, mm-hmm. to 2005 if you could remember. it mm-hmm. was very strong and very firm. definitely by then we knew together My mom, boole suñ talenti. you know my own ko my heart. you know I was working with him all all heartedly. so you know the uh, mom tamin si Mirzi you know is a good star is a good star you know can guarantee yeah, yeah, yeah, and he's a hot rhythmic you know also so being together with him you know gis naa ci njëriñ because boobu tamit daf ma push to another level level because it was a hard job that music is very tough and strong so if you are not a hardcore dafa hard sax pour Mm-hmm. So I, I was trying all my best to see that I know I give him you know, all my best. Mm -hmm. So no lañ so I can be proud of it. C'est mm-hmm. content naa because mun naa smart time ak taata jig naa taata. Mm-hmm. because taata yow it taata jig na la. waaw taata tamit jig na because xam nga we were fame together. definitely so Lord Mom, I can say thank God for that. Yeah naka nga melagra kampa bobo well they are all nice they mm -hmm. are mm-hmm. all brothers because they respect me mm -hmm. uh, from the, the youngest of tata uh, even in the compound the father the mother they just take me as their born child and the, the youngest of tata uh, sifai bai pabobo mm-hmm. dembo landing and the rest, even the female ones, they all respect me. Even the wife likes me so much, Adam. Mm -hmm. So definitely, I, I thank them so much for their love. They respect me. They give me due respect. waaw mbokk yi si loolu la ñoo jëlee chance rek di ci bigo baale tata dinding jobate ak family boobu noonu nga xam tata nekk ki nga xamante ne ku mun li moo def la ku baax ku yaatu ku xejal ñëpp xejal ay rakam xam nga buga rek pousse Gambia bi jëm sa kanam nekk fi nak di jangal yo wan si di educate xam nga mom mën nako wax legend la so, tata nge def lu nice ci Gambia bi kon ñuko big up xam nga rek tata maa ngi laa big up Ramatulaay ak big up ak Gambien chëpp ak la big up tata xam nga waaw ba legi rek ma ñëwaat ci yow Dembo Dembo nga jógee si tata ñu waat ci ami bammi foglo xaalis baa tax rek nga ne léegi xam nga fu mu nekk ni tax dem na ba benn time bi nga xamante ne waxuma ne munut li moo def waaye dem na ba benn time bu nga xam ne xal naa drop tuuti nga ne xaaral jógee foofu ñëw ci ami band xam ne time boobu waa ji fa nekkoon mu ngi naa xam nga rek puus xaalis beeg yooyu fooglu affaire xaalis beeg yooyu moo tax nga jóge si taata rek ñëw si kii naka la du si ami baan bi waaw ba léegi ñu jël ataay bi rek ci la bokka ma ne ko ataay bi ci la bokka mbokk yi ataaya baa ngi noonu gis ngeen ko ataaya bi nee na mm-hmm. mm-hmm. ya, am na solo am na am na solo trop <laughs> am na joxaa ñu bari <laughs> waaw lan <laughs> a tax démboo jógee si taata ñëw ci ami baan anyway nekut affaire xaalis mm-hmm. waaw because xaalis dafa neex na? waaye suñ buggee jiital xaalis mhm. bu baax dafa yaaxa lu bari si suñ xam nga humanity mhm. te I think even Tata can say I mean can be my witness for that mhm. it's not affaire xaalis eh, eh, eh. <laughs> dama gis ne rek waaw yàlla moo ko en foofu so ami bi def man mi dañ man nii doon that time also It just that he was not very much steady, mm -hmm. because like you said, um, at the um, time the father how drop, where mm -hmm. mom. could ne time boobu laa bàyyi taata mm-hmm. man dama bàyyi I can say in the right time because taata was going to Europe and coming mm-hmm. nothing was wrong with him so foofu la Emerson and then Dorby. so my ma déglu si ah, maybe. Mom, he was continuing doing his job perfectly, going to Europe, coming till this point. So mm. maybe some people might mun nañoo gisee ne maybe you know problème bi bi tax a demee ba am um, xam nga some kind of a little problem then loolu moo tax waaye du loolu. waaw waaw because nit yi loolu lañ wax ñu ci biti sax ah, loolu lañ wax. ñu ne démboo dafa dem ba nga xamanteni tata ngi xala am problem rek. Oh. xam nga mo bàyyi xam nga te loolu noonu nag démboo loolu nag du yëfi gor. Oh, xam nga so so nak nag ka yag fi rek mané xaramal la rek nga ko way kam ni nga eh, waxé démé wu fa non wow anyway I can just tell the media there's nothing like that mm-hmm. yeah man definitely suma ngoreya dama ko mm-hmm. sama lot dama ko sama ma mm-hmm. te man lima bañ ci suma aduna tey ma andak ak yow elek ma ñew tassé yow rahmatullah mënuma la xol si bot it's not my style Lolo ye figure. Kuma musa anda, si suma life o mhm. kuma musa musa uh, ah, I mean bole daradal. daal mhm. kenn Ken mën na taxaw mu wax ne xanaa nga tuumal ma ne Dembo dafa jékki-jékki mu bitre ma musuma bitree mhm. betrayal is not my style Li dama gis ne rek yàlla moo am suñu àndandoor bi ne ku ne def ma def dara man tamit def ma ko dara because kami ni malawahan. la waxoon I'm on a time that I've done them. Europe. parce que we are here. Mm-hmm. I'm here. ok I'm gonna bi suñ job la. waaw sometimes when you miss it. sometimes it stops you. Wow, so maybe this was the only point. So the army also see that I am here, so and they were needing me. so much so naa wax ne daal yàlla moo ko dogal noonu because I've been li nga wax ànd naa seeg yéen ànd naa seeg yow Jali Dembo mm-hmm. because Tata pare na pour dem naka tukki mm-hmm. xam nga nga toog lu yàgga di ko xaar mm-hmm. nekka musicien te ñu ne loo bàyyi lu lekka mu bàyyi la xam nga ci kaw loolu teyoo nga loof musique bi bépp nga dee looloo tax rek nga ne xaaral rek nga seet foo jàppale nekk si delluwaat ci ami bi nga xamante ne fa nga njëkkee xam nga kon yow kon mbokk yi comme noo leen ko jali démb boo waxee rek moom ak taata seen diggantee ngi normal dara awun fa ñu ngi am jaam ak salaam dafa del fële rek afta bi taata demee tukki rek nag mu toog lu yàgg di ko xaar xam nga rek nekk musique nekk li nga xamante ne mooy métier ci laa dundalee njabootam ci laa liyee mu ne xaaral rek mu delloowaat ci ami baan bi nekkaat fa waaye loolu indiwut réeroo diggante moom ak Tata yaa ngi si jaama waa Jali ma ñëwaat rek ba tey rek yaa ngi ci la tuddaati 2005 nga delloo ci bi gannaaw bi nga delloo ci ami baan bi ba pare nga nekk fa bi nekk li nga xamante yaay jamee leen contrôle because dëkk bi yëpp loolu lañ dee wax si suma gestu bu gàtta ami ñoom dañ fi nekk pour askan bi dañ fi nekk pour ñëpp di xool because ami war naa nit am programme sax mm-hmm. bindaleen ñu ñëw pileyal ko free te duñ ko fay waaye xam nga loolu yëpp amutoon mm-hmm. ami bi soo déggee fuñ piley rek mm-hmm. waxuma ne duñ daan pileyal nit yi waaye benn benn la soo déggee fuñ piley rek gars yi yaay jamee ko organise xam nga wala si foxi yaay jame yi wala si lii yaay jame yi yow nga nekkoon ci ami baan bi xam nga nag ndax yow mus nañ laa forcer pour nga wuyal yaay jame wala yow daf la neexoon nga génne yaay jame woy ok ah, comme ni nga waxoon mhm. ami baan ok ami baan is a band dafa exist since 88 mhm. ok we are the founder mhm. original comme mm-hmm. ni ma la waxoon I was the first guitarist employed. Ami Band Ami Band. Mm-hmm. went for the second two others in Sukuta. Mm-hmm. okay my college. Then we formed the band we were playing I was playing guitar and singing. okay dama bàyyi. ok dafa demoon ba time yoo xam ne dafa xaw drop. ñu bari dañ foogoon ne Ami Band was dead. Mm-hmm. So this is why in 2005 guy need new again with them. Mm mm-hmm. -hmm. try to raise up the ban again. Mm -hmm. Why maybe some people then then this eh, you know is just for Yaya Jame. Mm-hmm. No army ban is there. We were playing. We were playing Jisingente, Takai, waaye si ngeen dee ngeen doon pile ngeen di am yi la de ay ngeen di am yi ay ngeen di <laughs> police nga parce que maam ah. dëgg la maa ngi dëgg xëy na lu ma dëkkee wut si si si side si la xëy na side si dañ leen di o waaye comme ñun suñ area yële yële ay ñoom Banjul ak ñoom Sen ak ñooñu mm-hmm. ñooñu dama dee gis xam nga ñun right ami band stay ami baan ñu bari dañ leen like man fa ma like ami baan xam nga seen adiyeeroo fi njàng boobu mu nekk lu neex rek nga dee <laughs> mu neex ma lool uh-huh. xam nga yaa ngi gis waaye xam nga comme niñ ko waxee rek ñu bari dañ foog na yaay jame ngeen ne filière aleykum salaam ok hmm. so lii la pour ma leeral foofu mm-hmm. xam naa maybe yow noonu nga oh, sorry oh, mm-hmm. noonu nga ko gisee woon waaye mm-hmm. nekk demeetu woon noonu -hmm. We mm-hmm. were playing for the whole Gambia. Mm -hmm. You can them anywhere in this country, mm -hmm. up river, you know, Fatoto, Basse, anywhere in this Gambia. Okay. We go for sometimes school programs, mm -hmm. you know, and sometimes even some committees they then you know, then you, they call you them mm-hmm. and munawa ñoy the cheapest band in the Gambia mm -hmm. because army band you know, charge because yi the government la Wow. So kunyew, mm you hmm. know, sometimes they just charge you. Only our charge is only three thousand. Three thousand. Three thousand. Mm-hmm. So degal hanga singur bilan nega. So hmm. anytime ya jam so ame program. Mm-hmm. Not only the army but <laughs> most of the Gambian musicians even pa nega. So ah. we are there. So okay. why we are we were there for every Gambian. Okay. Yes. Jale mus nga genel we ya waaw mos naa ko si alalaake way naa ko si ah, alalaake alalaake alalay ah. alalaake pour ah, ay kay man sati wala alalaake moom waaw di xam nga alalaake <laughs> waaw way géwél la waaw waaye ok nga artiste tamit da nga ñu si alalaake bi tuuti rek ñu ñëwaat <laughs> <laughs> alala kero jonde obaira Una yitili sabali dunyaro kero Uli wale nyinina Tijini kanuni lanna ya. Pama ala yewe. Tijini kanuni lanna ya.

jëf Jali Dembo mhm. mbokk yi alalaake alalaake yàlla loolu la dogal man maay def Tambambalu show bi yàlla li la dogal ma invite Jali Dembo mi nga xamante ne woy rek laay def kenn werante ko mën a woy ba bugg a dee mhm. nekk di founder of the Ami Band nag depuis ba tey nag mu ngi ci Ami Band bi def fa def ci Ami Band bi jóge si Ami Band bi jaar ci Tata Dinding xam nga ne ku jaar si place yooyu ñu mel ni ay ñoom taata dinding ak ñooñu xam nga ne kenn du werante sa mun a wéy jali comme ni ko waxee rek mi ngi woon ci affaire yi ami ban bi nga delluwaat ci ami ban bi comme ma maa la doon laaj affaire yi wéyal nga yaaya jame nga ne mooy alalaake bi nii wéyal nga ko waaw jali ñu gis ne right now nii fu mu nekk nii si jamono buñ toll nii si suñ gestu mm-hmm. yow génn nga si ami ban bi yaa sa on your own mun nga ñoo wax lu tax nga génn ci ami baan bi wala nga ne kañ nga ci génn ak janwaari bii nii. wala affaire yi lii bi affaire yi woon problème yeeg yooyu mhm. <laughs> moo tax nga ne xaaral nga génn ci ami ba wala danga ragaloon daal wala <laughs> ragaloon <laughs> non ragaluma because man waaw ok mun naa wax ne yàlla moo ko def suma warsak mhm. because doomu lu la yàlla bindal foog nga jaar ci. Mm-hmm. ay kan mun naa wax ne liggéey bi moom bugga na ma. Mm-hmm. man tamit bugga naa liggéey bi. c'est mm-hmm. noble job. waaye wit si si ma bugg bugg tamit dafa am fu mu em. dama saafoon six time yi jawara comme ni ma la waxee. ma bàyyi dañ ma encourage bu baax. pour ma stay ma ne leen doy na because I have another ambition. ambition. another vision I want to follow. okay Monawa that was failed. finally I was with Tata okay again I went back to the army still that vision is in me mm -hmm. so this is why I just don't to talk for now. Mm-hmm. because definitely the army, army. They, my my superiors they love me mm -hmm. but all is only love da doom na nekk place i eh, am xam nga la am ban am na ñu mm-hmm. ban for foofu waaw loolu la yàlla dogal waaye ak ñu bari tamit bugga nañ ma mhm. bi ma paree bàyyi sax dañ ma bugg a commission as a officer mhm. to be candid mhm. ma ne leen is ok biñ doon doom si too bi sax ma bàyyi dem dañ ma bugg a yooni course in Pakistan ma dem advance course bu baax waaye master yes waaye loolu yëpp ma ne leen is ok because I have a vision that I'm following nekkul ne affaire ragal because boo doomu aadama Mm-hmm. su fekkee ne yàlla mu ne bal moo maa rey even su ma bàyyee nii bal moo non bal du la rey sax ñun duñ nangu loolu <laughs> so so yes la rek dafa mel ni rek bi ma doon dem sax because bi ma di diñ ma koolee waat mm-hmm. dama dem ma ne leen six ñu ne ma no ñu ma naaw six is not there mm-hmm. suma booy bi ma ne he ma ne loolu so what is the problem ñu ne ma léegi nine years or twelve mm-hmm. ma ne nine mm-hmm. suma booy bi mu ne ma non ma ne ko booy twelve dafa bari mm-hmm. mu ne ma non les bia mu ne ma force one dañ job army bi ñu dem mu ñoo am suñ pension ma ne ko waaw mu ne ma soo this time tamit su ñëwee ñu say nine ñu dem ñu am pension nañ bia rek ñu am twelve at least suñ bàyyee tamit ñu mun a pension ma gis ne li mu wax dëgg la so ma ànd ci loolu Mm-hmm. Why muna wah ne bima don delusa? Mm-hmm. I went with the aim ne dama saaf twelve finish mm-hmm. ma passé loolu te loolu la ya dogal ok kon danga sa non contract ak nyom sa contract du moo jeex moo nga génn ci ami baan bi waaw mbokk yi jali ragalut moo mu génn ci ami baan bi contrat am ba jeex mu ci ami baan bi jali bi nga génnee ci ami baan bi su suñ gestu bu gaatu ne légui da nga am sa own bani bopa da nga def sa own thing chali la na la inspire ba nga yow nga ne légui nga decide ne liggéeyal liggéeyalati kenn do nekk ci onda kenn da nga bëgg liggéeyal sa bopa am sa bani bopa di dem. yeah because comme li ma la hmm moy that's my yeah initiative uh uh initial dream. Mm-hmm. to be my own. musician like mm -hmm. to mm-hmm. run my own thing thing mm -hmm. so yàlla moo def nii rek ma jaar si yeneen bundi because aduna kenn xamul waaw aduna noonu la nit tamit balaa nga am doole foo nga am si ngay jaar mm-hmm. so with all this ma ngi doon job ak nit ñi mm-hmm. waaye I was doing my own job you know underneath me alone when I'm alone I continue doing my job so that days like today when it happens, I can also stand on my own. Okay. So, Lola Jali, eh, am nga album? Ak ñaata album nga génnee ñaari album laa génnee mm-hmm. First one bi was in the army, titled mm -hmm. Alalake. Mm sax moo bëggoon a album bi. Mm-hmm. Waaye yàlla dogut. Mm -hmm. am. Okay. So, the time bi jeex. guys I encourage nañu ma feel whole you know because I bi ñaata woy moo ci nekk julli jëlle be ji daal julli say la bi mooy alalaake bi beneen album bi nag beneen album bi mooy aduna seven tracks seven tracks non am naa ca fi comme déglu naa sa musique waa xam naa di nga ma jox bala maa dem di nga ma jox si sa album bi mu nekk lu nice xam nga parce que yow mii mun nga woy lool lool am waaw jali comme album bi ko yow foo toll ci sa process bi nga naka la sa projet yi nga xamante ne da nga war a loñ sa album bi parce que xam naa ne nit nga yow mun nga woy te ku la jàppale nga dem fan nga ci toll ci affaire yi loñ sa album bi Well, I think Roland Dina definitely. Lamakobuga mm -hmm. is my dream. Mm -hmm. While Fumnekani, I haven't got any plan about mm -hmm. it. Coming out me because I need support, mm -hmm. I need funds. Mm-hmm. mm-hmm. So I am looking for that, but I would like to launch album B. Well, better launch mm -hmm. Mako. Uh, the Mako launch, I mean support. waaw danga bugg a loñ album bi soo amee support mbokk yi yéen a ko dégga Jally dafa bugg a loñ ci albumam bi fans yi yéen ñu ko déglu yéen ñu ko déggagut te dinañ ko jokkale kii ku ko jàppale mu dem comme ni ma leen ko dee waxee Gambia mun na bankoole di ye jamuta nga jamuta isaaje Gambia ta nañ jàppalante Gambia suñu réew la ñoo ko bokk réew mi suñu réew la te comme ni ma leen ko dee waxee rek Gambia am na talent waaye dimbale bi moo tax xam nga nañ di dimbalante nañ di dimbalante suñu siyeen yi ak ñu am talent yi si dëkk bi xam nga nañ jàppale soo jali nag fi mu nekk nii dafa bugg a lonc albumam bi album bi nekk mu génnee ñaari album yi nga xamante ne album yu riis lañ album yu neex lañ ku fi dégg jali mi lu mu woy nga xam ne jali mun naa woy nga xam ne jali woyantu woy daf ko doon na fekk ay maamam di ko def mu ñew nekkal lu nga xamantene dafa nekk ci mom mu diko def so jali nak bu gëna ko dimbalé so mbokay ma ngi leena ñaax yeen ñep fépp fu way mëna nekk rek nañ taxaw ci affaire jalli jali bi noko ko munti dimbalé rek mom dina ko appreciate jali ma ñëwaat ci yow ba rek jali yow musna tukki. waaw musna tukki 1996. yow ak andon kan ci tukki bi. waaw ma taata dindi ñoo andon mhm. waaw dañ ñan ci kafo Paris ñooñu oote woon waaw dem nañ foofu am nañ three months mm-hmm. waaw so France different part after we mm-hmm. went to Germany mm-hmm. Frankfurt tamit am nañ concert waaw jali tukki dem nga Germany Angleterre ya? ak France ok nga ci àndaloon tukki tamit xam ne wow people. Some hit the wall, don't know. The West also don't know about me. If I have the chance, I love it. Charlie, so they play music. Uh, danga they play music bi know, wala danga they play the music with the kora wala with the guitar yeah. ban nga si def okay because kora i am now trying to to learn the kora -hmm. okay because it's my traditional instrument. Mm -hmm. But initially, I start with guitar. Mm -hmm. And all this period when I was with Tata Dinding, I was playing guitar. Okay. okay. Uh, even in the army band, I play guitar and singing. Mm -hmm. yeah. Guitar is my, I can say it's my first class instrument. Okay. This one, maybe the, the stars will listen, they know that I am not very much perfect in this, mm -hmm. but I'm trying so that tomorrow pour tomorrow at least mm -hmm. mamuna neka darasi leader mm -hmm. and trying kora ojita is my instrument i play and singing okay. and saxophone saxophone i play that in the army okay yeah. um jali malajat la benen benen question rek mm-hmm. am jali ba ku yaata rek ki nga xamantene ku ne jali ku ne misi gi rek dégg na jali baa kuyaate jali kuyaate nekk jali bu mag ah di king of kora comme niñ ko dee waxee rek king of kora Gambia bi ñu bari nangul ko ko ndax yow nangul nga loolu jali baa xam nga man ah, li ma believe lu nit lu ko yàlla may mhm. Mm. mun a dem jalibaa mun na woy mun na woy si yow mun na woy waaw mun na woy jalibaa mm. is a star okay <laughs> jalibaa is a star jalibaa definitely they mun na woy te mu woyaam am maana bëgg nga liggéey ak jalibaa ah, well du ma mën a bañ su fekkee na yàlla boole naa ak moom. Mm-hmm. waaw waaye comme li ma la wax fu nekk nii I just want to try my own. da nga bëgg a nekk daal ca buuri boppa nekk sa king of koraayu boppa waaw. Mm-hmm. ngay ma ne aar bi noonu la nag ku mm-hmm. nekk da nga war a bay sa waar aar bi yaatu na te ku nekk ay bay sa waar. te comme like seen diggante na la seen diggante mu ngi a tax. waaw kan Jaliba. Oh ham xam na ma si nit ñi. ràññee na ma bu ma ma respect ci wala ndey su ma kilifa la moom respect respect nak ko te def ma def ma dee woon mu buggee laan di tamit waaw suma jali nak nag ay jali nyom jali nak? Ah. naka jali nyom jali ke ke wow, ak. waaw no len mel yena in good time. we are nice even young jaliba that was a time i was playing with him on long dam ko de back mhm mhm ngon mene suso Okay. Yes, we are nice. There's no problem. Aksam suso. Mm We are nice sisters to me. Nene mom suma jarbat ya. Okay. Mm -hmm. waaw mu nekk lu laay su mbokk yéen a ko dégg li ñii amuñ benn problème ñu ngee déggante ñu ngee saafu wante xam nga aar bi daal ñu poko bokk ak ku nekk na ñëw rek bay sa waar xam nga ñu jàppalante jëli mus nga expérience xam nga affaire yi géwél rek xam nga suñ ne géwél di nga gis léegoo léegi ñu ne kii moom a daxa woy kii baatam bi dafa neex kii la dee nit di gën a oo xam nga affaire yi liggéeyante bi affaire yi sëriñ bi parce que loolu du ñàkk xam nga fii àdduna la te nit yi doomi Adama Njaay moom xam nga rek yàlla moom mun na moo def lu moo def yow nga ne déedéet yàlla lu mu def nii man ànduma si arama jël suma own way ndax yow mos nga expérience lu demee noonu ku tee sa baat bi wala yow ku la liggéey wala ku la lii waaw anyway li nga wax nii mhm. dëgg lu am la si aar bi mhm. am na de mhm. am na ko wéeri tamit da nga wax rek waaye am na ok ok nga baal ma nag du tudda kenn. non bul waaye. waaw expérience naa loolu. ok mus nañoo téye sa baat man anyway mus ñoo téye suma baat waaye I have fights. Hmm. am naa fights. fights ak ñan. <laughs> yaa ngi ñan dañoo leeral rek xam nga ñëwuñ fi pour jaxase <laughs> leen wala pour lii leen. Hmm. yaa ngi ñan a amoon eh, fight boobu. am na yi nga xam ne. in time together as musicians am na yi nga xam ne sometimes you know suñ gisee sa may woy dañ dee mer o suñ gisee ku wax ne Jos woyam bi dafa ne o Jos is a star te loolu la yàlla dogal waaw te te tamit uh-huh. ok nekku ne dama ko sàccuma ok yàlla moo ma ko may. ba mhm. pare dama si try tamit because aar bi dafa metti di. Mhm. dama si dee dama dee aar bi dama ñëfee. Mhm. octobre fi ma nekk ba tey. mënuma waaye di standard bi ma am. may yàlla la ak li ma struggle. so waaye am na ñi ma bañ si loolu. bëgg maa gis ma dem fenn. am na ñi nga xam ne dañ ma fight pour bu ma mun a dem fenn. moo ñooy ñooy ñu ñooy ñan lu tax loolu yàlla dogal ba pare ak dembo ni nga mu ne wër kar masala jobs comme ni nga ko waxee gaay yi bugala lool ami ban bi bugala lool because farato naka busumbala fi bu ya, ma laajte ñu bari dañ ma wax lu baax ci yow ya, wax ma ne ku baax nga ku mëna a wéy nga te nit sopa nañ ñi nga def yow yalla binda yow nak nga ne ñoo ñu lu waral loolu nak seen gaay dañ la liggéey won dañ téewun sa baat wala dañ la xex ci yenen place waaw dañ ma fight in classes pour bu ma mën a advance mhm. waaw like like ni ma la waxoon suma album bi di mhm. alalaake I mhm. fight in that album moo tax album bi mënut a dem dañ ko kale mm, ok waaw nit kale na ko si diggante yow ak presse président waaw ok te lim wax daf ko doon wax sax nit ñi Mm-hmm. nañ toog ñu gis ndax affaire bi dina dem. waaw am na ay witness ñu ko witness mu ko tiitaru wax na ko yàlla dogal na waaye kooku man wóoru ma si moom. Mm-hmm. parce man xam naa moom seetaan la àndal. Mm-hmm. because man suma talent saacuma ko dama ko doon ba pare dama si struggle. so lu ma yàlla may yow boo ne doo mën a gis loolu te mu jarale yeneen xam nga fii duñ des fii. waaw dëgg la ñun ñëpp dinañ dellu suñ borom. Mhm. te bés boobu boromam duma ko baal de. Mhm. ku ma mus a fight on this earth because bu ma xamee suma bopp ba tey. Mhm. ramatulaay sant mun naa sant yàlla si loolu. musuma fight kenn. te musuma xalaat sax pour fight nii. waaye ku ma fight tamit bàyyi waaye fooguloo waaw ku la fight danga ko bàyyi yàlla fooguloo ngay jëlale di baale parce que fii lu yàlla dogal rek lu yàlla tudd ba pare dina am dañ lay tardel rek. waaye pour nga dem fekk yàlla mu ne di nga dem sa album bi di nga ko lonc di ko lonc kenn du ci mun dara waaw dëkk bi nag ñoo mel noonu man du dem suma morom du dem nañ bàyyi loolu comme nu ma leen ko dee waxee mbokk yi Gambie suñ Gambie la nañ dimbalante nañ célébrer tante nañ nañ nañ nañ nañ inewante xam nga isaje na banko yeta nyameng bari nyinko ate bitala ita ko nyinti tala wo ma nyinya gambia mu na banko lo tintol bele tamu alimbe ke kilinti ñu bokk liggéey ñu àndoo jàmmoo ndax ñu ñëpp suñu affaire dem si kanam Gambia bi naat réew neex jàppal ma jàpp dafa neex yee jàmmuta nga jàmmuta woo ñii ñaatale demoo ba tey rek comme affaire yi bu ko ma affaire bi dé suloo xam nga rek man dama bëgg ambiance bëgg wax xam nga Aïssatou Diallo fofu mu ngi la bëggé keba Keita ak ñom Assane Touré Ousmane Ba ñeen ñop bëggé nañ leen ñeen ñu ñoo seetaan gaay ak la bëggé bu baaxa ba ñu ngi la encourage ñu ne nga keep it up xam nga li nga def nice man te jobs li nga def mun nga ko bu baaxa baaxa baax man na gey njooro xam na ne afta ding ma ding di ma fental way bu neex ci Tambambalu show bi xam nga be pare rek kon jali ñu dem rek nga meñu ñu julo bu ndaw rek xam nga rek bege si kasila, musuye kasila, aye kasilana musuye kasila kalema uludini ye uludini wala mine aye kasila musuye kasila aye kasilana musuye kasila kalema uludini ye tenye wala mine Fiku denko denko kagelena Alaba moming sodina Ayamina barakala Kafama kunyimalo kalonko din soromandina Ay, ah, ale bɛ den di mɔgɔ dolo ma k'a sɔrɔ o tɛ den ko fɛfɛ doliya ɲinina su ni tili la ala ma den di wolo o bɛɛ ye dakan ne di jom kana paga jom ma jom beni dakan

na kagelena tunga malambelo baraka dinyi malo ubeye tungaro tunga mandina gele ya ye tungaro nogo ya ye tungaro ubeye tungala tunga kegele Ramatulai Jeinjo ne be jigi baraka daw ye ne kanu baraka daw ye ala k'i sosi janyala boni koroba kuɲima ramatulayi jeyi ko barika a ye kasila musu ye kasila aye kasila na musu ye kasila kalema wuludini ye wuludini tununi. ahankay woy boobu neex na mbokk yi woy gi neex na lii la yàlla dogal kon ba léegi ni ma leen koy waxee rek yéen a ngi seen Pambambalu show Gaye Njoro di leen ko indil si Gambian Talent Promotion rek ngeen mën a amee yu baax yi si ngeen mën a amee ñi nga xamante ne dañ leen a indil seen style di leen indil ñi ngeen bugga di leen indil ñi ngeen like Gambia bi am na talent comme ni ma leen ko dee waxee rek saay na rek dee leen ñuy rek. fu nekk fu nit nekk rek di def lu nice ngeen xam ko ñàkk koo xam ñun dinañ ko laxati dinañ ko génnee mbaadu nga xani nga faale ñaameng xani bi nga faale ñaameng dorong mbee bu sumbala naata bi naata jali dembole jibe comme nga faale ñaameng ñi jali dembo be kacaakan ñing kaca nak lafta la nu man ka ko bari na man ding ka ko man sene rek wari wala tina rek mba jaxas baxas la ni nga man ko do man ding fodorong nga surwa ka fo hani bi dembo yun se ñinin ka dembo na ye iya musu jël soto oke ah, musu okay tuh ah, na ajara to wala fatumata ku ya te hmm ah wala namu to te mbokay ba terek rek atay bi ñuna mu ne ko ba terek rek ataay bi ñëw xam nga ñun tambambal bi fa am ambiance lu nekk si bokka ñun namuñ dara la dogal ya. Boy, yo ada, nga attaaya Anda, itu anda. Itu itu ya baraka. Baraka jali dembo. Tanta bake la kuala, alpana na Nyinyata. vraiment ala ya dio amin kaga ala ngani yo muminti mm-hmm. asoto mandia mm-hmm. kamisi siano nyini hotol kono ka pintindi pour moli e kalamta mun mm-hmm. to fana ne kuba ala ti kontanta ba ke la dina la la ala mela nyote amin ya rabbi fana so sima bani jate kende bala amin ne ta ko ala ma ala yo ke amin ya rabbi bisilandin ko kula mantora kota ala ma ala yo amin ya rabbi amin ya rabbi ma ka ba? maa la gën dogal paski que ñun lii rek fépp fu waay nekk rek dinañ la fa fekka comme niñ ko doon waxee rek ma ngi la doon laaj ndax sëy nga nga ne ñaata jabar nga am ak ñaata doom. ma jabar. Mhm. benn jabar nga am. waaw. dama musa ah, Oke, lamen mm-hmm. mm-hmm. kan. Oke, Nyari Oke, mm-hmm. Oke, Oke, oke oke Elda Wan Oke. Oke, kon am nga doom nga xamante dafa dem ci bi oke comme niñ ko rek comme ñu doon jali jali ñaata jabar lam, jali jali benn jabar lam, jali nag mus naa sëy dafa tas loolu la dogal lagi nak fum tollu ni right now ben jabar la muy Mariama waaw am ak mom ñaata dom am ak mom ñaari boy waaw mu nekk li nga xamantene happy one big happy family la yenen domami nak ñu ci si magam bi jugen bi Lamin jali afta biñ la laaje lolu jali legi comme que yow la nga bëgg nekk sa mit seeni bop da nga bëgg am sa bop la nay sa project parce que jali gis nañ ne comme ni ma ko dee waxee rek Gambia bi am na talent Gambia bi musicien yi fu right now nii musicien yi bari nañ ku nekk rek jóg bu nekk woykat yow bala maa ñëw si boobu sax xaaral ma njëkkagum laa laaj yow si yan projet nga toll ak Jali fan la bugg dem fan la bugg a yóbbu misigam bi Jali xam naa ne nit nga ndimbal léegi yow looy wax ci loolu. yamakuvuga yo mudem ko fa yamakuvuga mudem sorry si aduna bigal mhm. yes because me I'm gonna get mau dia dog. I'm a big hard man. Mm. Me alone, I just want to be like people like the late Bob Marley, how they are saved. pantai -hmm. One you know, by the many, you know, so, mm -hmm. well, and they work very hard mm -hmm. job very hard mm -hmm. suma music bi mën a support of people because nit ñi tamit ñoo ma mën a support ma mën a àgg foofu xam naa nit ñi suñ ma gestu rek mën naa wax ne li ma mënta dem du mën dem waaw hmm. Jalli ndax am nga plan pour génneel government bu ees bii nii woy waaw am am am ak lu tax nga bugg a génne gaay yi foog da ko bugg a manding ka nice. no not <laughs> <laughs> <laughs> gis nañ ne yow yaa ngi woon ci abibar bi te yaa ngi woon ci yaay jame te génneel nga yaay jame woy foog loo stratégie rek nga ne xaaral ma génneel ñi da ñi tamit ku nekk ak time am la mm-hmm. ok tamit mm-hmm. ah, pour nit woyal nit tamit war sax la daal mm-hmm. da ngaa gis ne nit sax ku ko artiste sax da ne ku ko gën a jege sax waaye na saay pour mu woy ko saay sa problème waaye nga ñëw gis mu woyal keneen ki oh, ko alta mbe doo kool alta hey alta so loolu tamit war sax la daal anyway maa ngi ko xalaat. Mm-hmm. waaw defal nga ko nag waaye. sin may maay daal. Mm-hmm. waaw bés ko yàlla dogalee. waaw mën naa naa la mm-hmm. daal. yow ban advice nga am pour ñoom government bi es bi nii ak naka nga gisee government bi es bi. government bi ah man kay moom. li ma mën a wax daal I love government and I because ñooñu la yàlla indil at this te ñun jaam la mm-hmm. nit lu yàlla dogal jaam mm-hmm. manu si dara mm-hmm. yàlla moo bindaa ne time bi government bi moo fi war a nekk so man si suma gis-gis daal ñoo accept ko xool xaat hmm. support leen hmm. ko Gambia su demee right pour ñun la su feelee tamit ñun la hmm. we have no place other than our country so man every day maa leen a ñaanal lu baax daal réew bi mën a dem ci kanam so Gambians expectation waaw man kay loolu laa am loolu nga am pour advice gars ñoom man kay li ma mën a advice gars mooy you bi yombul iya, te mm-hmm. yana say anything swing heavy is wahida bebari daf dee nañ faté wahi yi ñoo ñu fàtta seen noppa yi ñu gis only Gambia mm-hmm. and the Gambians ñu mm-hmm. try taka sen ndigal liggéeyal Gambians si wow man daal lool that's the only advice I have for them me I'm behind them so loolu am Jali comme ni ma la ko doon waxee rek mhm. fi mu nekk nii Gambie bi bari na ay musiciens xale yaa ngi woy mhm. mag yaa ngi woy ku jóg bugg a nekk woykat mhm. am yow lan nga am pour advice ñi nga xamante ne comme young commune artiste yi ñuy ñëw ak ñi nga xamante ne yàgg nañ ci aar bi tamit lan nga am pour advice gars ok détails yi ok man détails yi am na si wàllum artiste mun naa wax ne xale laa foofu mm-hmm. ok waaye affaire bi tamit dañuy rawante mm-hmm. man am na ñu nekk suma kanam mm-hmm. am na ñi nga xam ne ñoom tamit dañ ñoo xool seen kanam so man daal li ma mën a wax gars yi daal aar bi it's not easy aar bi dafa métti so it needs a lot of commitment Mm-hmm. So, so we get artist, no, know, lagi hat, get job over, and because, pare, you know, even you are, wo buge neka instrumentalist, for the train hard, kamu mm-hmm. na as, an, as the British say, train hard and fight easy. Mm-hmm. So, the hard, diganggu lagi get very hard, kamu na achieve darah. Mm-hmm. te woykat yi tamit ñun ñun ñuy nekk di woy mm-hmm. ñun tamit war nañoo bàyyi xel because woy mm-hmm. woy dafa garaaw as a musicien boo ne ah dem na de so at least artist liñ xam ci musicien we a preachers musicien dafa mel ni sëriñ because buñ njëkkoon si yu bari suñ koto yi suñ maam yi nekkoon si musique mm-hmm. suñ woyee rek daf dee am lu ñu dee jàng si seen woy mm-hmm. nga xam ne boo ko bàyyee xel mun na laa gaay si sa àdduna mm-hmm. so nañ mel ni ki ñooñu ba tey ñu woy li nga xam ne dafa am maana am fayda suñ ndaw yi tamit suñ ko déggee mu nekkal lu baax good direction si ñoom waaw man daal loolu laa mu ne saa xam nga olof Njaay mu ne. lu neex du doy man dinkool ko di kudima abuka abuka jongo si xam nga liiro futata tongoto le sayen sayen mune bele kela ila kuma labongoti ibe ming fola ila fan sole anin gambia mumi mobe ak ñi nga liggéeyal la yemin fo wala mm-hmm. kontanta bi luŋo la mm-hmm. e eh, bi mu luŋ le ti bi serima ke bul de mm-hmm. ala ye laɲini ite ramatullahi jey jey wultana wol di we to struggle e i bena sama fin kan a be dirisol kan imao be jiwe struggle ta fo kana ka futan nte humble self la wo eh, ketaŋe kuuba ti so wata folo folo nda ala tentula mba jayla miye nda mbe hmm. tatamakullahi fanan tentula bake mbe jayla ani mm-hmm. doku ñolu mm-hmm. alla branch wala gambian talent promotion talent promotion ko mm-hmm. kurumbal be konton na alla lodula ñimmana nalla jeeri ñimmana langania ñimmala al kacata al kacata pol soño kan mm -hmm e ibela duño konte koyta jal dembo mit usumbala ah. ah. kon be tentugo murindi latol fanan kam mbal tentula bake mm-hmm. ite min fan i struggle ta kana mm-hmm. iman kilola kando jibe mm-hmm. yela sedulol be filije la kuudimal be filije naata kanante hombul man noma jam woto wayen kontan bake mbe tentula wala mbe jayla Eh, mbe gambiyano fana mbe tentula mbe jayla mhm. mbena fansol fana mbe tentula mbe jayla mhm. fansol minu be mbulu mhm. ah, suwo kuta ñawa ni mamanta aka jare ene tara je han sama be kering addibo be kering fansol be je min yala nim mamanta doron aka jare ko be la to mbol fanan tentula baake mbe jayla baake bi lumola anin ila muta ila muta ñaani la nga niyo kan mm -hmm. anin bela gambia di ya kama wota -hmm. wata bi katangel lum bala tin sewota wata mm -hmm. be wol be tentu la mbe jayla mm -hmm. mbañol konton na be fañol konton na mbe -hmm. konton na mm-hmm. be kotol konton na mm -hmm. domal fanan min be nge dumal be be konton na mm -hmm. minu musicianol tiba minu manke musicianol tiba mm Mm-hmm. de de konton na bi lungo la mm-hmm. bi mu ngel lumbale tin kontanta lungo la bake e ndo gambia no a jalin tol kontan tele karun tol da nganyin da mala soto gambia ngobe dawo da ibe kudi make kan ibe kunyi make kan fon se tare je dara ni ya fan sol ye je sol ya lonko tara siring sol ya lonko be do kola hani ime ime je folo ime je bare ibe duma ibe la do ko ko ke kan ku isa je na fin se dorong ni mol ya la moy dorong isa lonko ila do ku ma ila sio be ni la ko be yedo ya ku ñimaale ke waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxe rek ba tey seen tambambalu show si Gambian Talent Promotion sen xarit ge Njoro mo len ko dee indil tay nak bu su mbalal nañ len rek ci Jali Dembo jobate Jali Dembo nak nek ki nga xamantene am ay Jar jar jar si ami ban bi jar si Tata Dinding mu ci ami ban bi depuis 1988 mu ci ami ban bi mu joge si ami ban bi jar si Tata Dinding jogé wat ci tata am ci tata te yees ànd ak nak tukki ak mom dem ak mom fu nekka ñu nekk nekkin bu rafet seen digante ba tey dara ñaawul ci ba rek muy xuus olof njaay nak mu ne so gisee nit di dog dogi tata, bo gisee jali jogé ci tata dem ci ami van bi yow mu ngee seetlu mbuga mu be di dal bopam ne dafa buga am on vani bopam, te ñu ne lo doonu taalibeem naka lo doonu taalibeem do doon sëriñam mu am ay jaar-jaar ba taxaw nag munal boppam yëg ne léegi li ma def mun naa ko bu baax jaar na ci ay ñu baree bari ñu ko jàngal muy xuus di dem musique bi nekk nag li nga xamante ne Gambie fii nii musique bi ñu ko def mun nañ ko am nañ ay star am nañu am talent comme ni ma leen ko dee waxee way jàppale bi moo des si musicien yi koo ci munti dem ak ñi am talent nekk ci Gambie bi yóbbu benn kàddu bi la dimbale bi. dimbale nekk li nga xamante ne lu am am am am solo la ci si lépp luy waay di def mbokk yi comme ni ma leen ko dee waxee ma leen naa ñaaxaar rek Gambia suñ Gambia la ñoo ko moom nañ liggéey nañ jàppalante jàppal ma jàppa Gambia dem sa kanam suñ réew dem sa kanam te suñ star yi ñu si mel ni ñoom démboo ak ñeneen ak ñeneen ku leen dimbale ñu dem nañ taraay nag dimbale gaay yi pour Gambie dem si kanam suñu réew neex parce que sa doomi réew bu nekkee star di génna di expose boppam ci wool bi ñu ne kii Gambie la jógee rek loolu dafa neex nañ leen dimbale gars yi nañ leen dimbale démboo fi nga xam ne na right now ni mu ngi teg ñaari albumam yi nga xamante ne bii am na eight tracks bi am na seven mu bëgg a koo lonc di ut dimbal na leen ko dimbale te ku ko dimbale mu dem mun naa woy am na im am na ay am na jabaram am na doomam mu ngi liggéey style naaw mu ngi liggéey di dem ngir bugg a nekk bañkat di béy waar aar bi nag yaatu na ku si nekkaay béy sa waar waaye nañ dimbalante mbokk yi loolooy nekk suma kàddu gu mujj seen xarit la nag géey njooro ñambeeg maam xaasima ak seen bu doomi ndeyam baayam seti maamam di yaayi baayam di leen indil Tambambalu show ma jox leen nag di daje ëllëg dina am artiste bi nga xamante ne mooy Big Faa by foo si Gambian time Big Faa nag bëgg nañu waxtaan ak moom si tribam bu moo waajal ñu leen a dox dig daje nag ngeen gàpp ko kat leen ko fa. Tamba Mbalu show rek ñu leen a indil seen artistes di leen indil seen celebrities yi di leen indil ñu nga xamante ne ñu ngi si dëkk bii di def lu nice ngay businessman fu waay mun a nekk soo ñu ooyee boo ñu koolee nañ la ñëw fekk si fii ba fatuutu ñun dañuy dem ñun tooguñ xaar kenn fu ñu nit oo rek dinañ la ñëw fekk si def ak yow lu nice waxtaan ak yow ñu ne réeroo amul ñàkk a waxtaan a am jali démboo bu ñu waxtaanee moom. leeralal ñu ñu baree bari wax nañu ne ñu bari ngi doon wax ne dafa joteeg taata dinding loolu tax mu génn fa leeral ñu ne amut ak taata benn affaire benn benn naka benn problème jàmm ak salaama dox seen diggante yàlla dogal waxtoom jeex si taata mu dem ci leneen xam nga di ut rek di làmbatu ñu ne danga làmbatu ba daj loolu la yàlla dogal lii lañ leen amaloon nag jëli nag balaa ñoo tàggoog moom dinañ ko bàyyi mu may faan si dara especially Gambian Talent Promotion nak ñun jali dañ sàddoo lu nga xamantene ne suñ tasee ak artiste rek di ñu may dara Gambian Talent Promotion di def lu nice malena leen a big up saa yu ne eh. ñun Gambian Talent Promotion sax ba léegi nit nañ sponsors nit nañ ngeen dugal seen copart ñun te xam nga ne affaire bi yombut nañ jappalante Gambia nañ fonkaluñ moom jappal ma jappal suñu réew dem sa kanam seen xarit la woon nag Gaye Njoro ba beneen yoon ñu bàyyi jali nag mu may ñu tuuti rek ci kora bi may Gambian taleen ak fan ci koo déglu jërë ngeen jëf kobarika pansile pansi kobarika Ramatulai kobarika oh ¡Cobarica! Oh kobarika También calo, alunisu كمية جماله أيدي سوم Cambiamos con il malo, cambiamos con sarà malo. Ai mi parica. Ayu, jama ini su, aini ugala jaliala. Fancy lule, aini su kobariga. Nebe jigi baraka dawye ebekani obaraka daw ye pansilule bariga ala kana ala jigiti ñabada ramatulayi jeyi bariga ɗen mbaalal de mankora noobake ɗen ɓe koratara kane ne instrument o pamo de bari iko sayinin do komin tare kaali fo walla bi rahmatullah taala ma ako bari to samaneji ni ñinna pour nga kacano mm-hmm. bari asi duwange ya fanan ɓe koratara kam kon fanan sike kora stade mm-hmm. baraka baake jërëjëf Jalle a baraka lii lañ leen amaloon nag tey fii si Busumbala Tambambalu ak Jali Dembo Jobaate jërë ngeen jëf ñu di leen daje ba ay yeneeni bés yu aay jërë ngeen jëf